man la El Hadj ñun waa kër sëñ Cheikh Abe ñu ñooy nekk ci di séddale kafe gi ci euh, en face Massalikul jinaa bi di kontaan loolu nag di am mbégte xam nga dala gani bu baax a baax a baax di leen dalal ci bis bi nga na bis bu bis bu rëy la si ñun ñun murid yi euh, di sant bu baax a baax sañ sëñ Tuubaa bu baax a nag di sant bu baax a baax baax te ma ne gars nañ naan kafe gi bu baax a baax café gi xewal ngi ci xewal bu bëree bëri sa ngi ci ndax café gi xam nga ñoo ko seegal suñu bopp xam nga ba mu mat sugar ko ba mu saf sap daal di koy yi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax sëñ sëñ baax di sant. waaye lii mbégte la mbégte bu rëy la mbégte la ndax ñun fi lañ nekk Dakar la ñuy liggéeyee xam nga di dajale xam nga di am luñ amul lépp ñu boole ko ci bis bi. ndax bis bi doon na bis boo xam bu rëy la si ñun murid yi moo tax ñu si ñu ngi ko am bu rëy nag bu rëy rëy sax xam nga waaw waa waa waa waa Thiès 24 ñoom sama sama waa man Thiès laa jógee Thiès laa dëkk waa Thiès 24 sama waa ma sax ñu romb ma sax. mën na leen jël leen moom xam nga ma ci bis bi ndax bis bi am na important trop te ñi sama mbokk la mais Cees laa dëkk r laa rek R100 maa ngi nuyu sama ñoom tante ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax ak sama rakk yi ñoom euh, ñoom Cheikh ñoom Ndiaga maa ngi leen di bu baax a baax sama doom bàyyi waaw di kontaan trop nag si bis bi nag incha allah café gaa ñëw mais waa ñëw pereguñu de isa ñu ngi ci ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax pereguñu fii ba ngoon ñoo ngi ci incha allah ci meew salaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di leen kontaan nañ trop tey ci bésu sëñ bi di wax jërëjëfe Serigne Touba bi wër ñu ko tedd gi la ñu tuddee waaye suñu xëyee ñoo ngi jéem a góorgóorlu pour jéem a nekk ay murit waaw kontaan nañu daal tey moom vraiment ci mbooloo mi man pour man sax maa ngi Touba wër na Serigne Saliou tey moom vraiment kontaan nañ bu baax a baax sax ci mbooloo mi waaw di ñaanal ñëpp jàmm ah. waaw ah, jërëjëf Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba jaraw lakk Cheikh Ibrahima Fall Lamp Aboori Dialloulay waaw ñun ñooy waa Diamaguène ñu jógee jàmm gën di ay chauffeur nag waaw Serigne Touba rek ñor ñu ñu koy liggéeyal guddeeg bëccëg suba ak ngoon di dox ci ay mission am di ay taalibe nag barki maam Sera Fall ak ay Yaay Fall ñu ngi nii soxna Rokhaya ak ñoom Ndonga ak Yaay Fall yooyu yëpp toog ñoom paa Wade ak ñëpp ci biir barki maam Sera Fall waaw di ziar rek te xam ni ñun murit nii rek la ñu am waaw. waaw gis nga yaa ngi dégg gis nga. waaw yéen a dégg waaw. waaw waaw. waaw gis nga xool day gën a sedd rek ndax dañoo fekk fi may introsé sax ñuy confirmer sama wax ji ndax Serigne Bamba li ñetti guddi Ndakaar yi la barki maam Serap fal te li ma leen di wax yàgg wax rek confirmation dafa yàgg fii ndax tey li gars yi di toog ci télévision plateau yi di dingat Serigne bi di di ŋàññi ay soldats yi simi seene daal di sukkal sëriñ bi wala leneen barki Cheikh Ibrahima Fall lam dañ gis leneen lu gën a piir loolu te muy Masalikul Jinaan bi war na maam Serap Fall ndax Masalik bii nii dimension la boo xamante ni da nga daan jóg déplacé wu di dem Touba ñu ne booy dem yóbba ñaanaaleel ma léegi Ndakaaru ngay jëm ñu ne booy eggee Ndakaaru ñaanaaleel ma kon fii rek la am Serigne Bamba rek ko am loolu keneen du ko am barki Cheikh Ibra kon ku dul Serigne Touba rek Baye Fall ñun Serigne Bamba rek point Cheikh Ibra da dañ ne nag yoon wi ku ci bëgg nekk da ngay doon ab dof ndax borom yoon wi sax dof loolu muy Cheikh Ibra du woon nit barki maam Serigne Fall mbaa loolu daal lu ma sa wax rek dañ naan dof yi waxati na kon Baye Fall yi ay dof boo leen nekk ci yoonu Serigne Touba ak Serigne Fall doon leen ay dof te Laay Wade mi def lii dañu soxna Fatou Fall Wade mi nga xam ne mooy première soxna maam Serap Fall mooy maamam di maam di bàjjan ci Mocoro Wade muy waajurum Laay Wade kon bu defee lii dafa wàcc confirmation palais bii palais bii nii maam Saliou Fall rakku maam Serap Fall ko njëkkoon moom jox ko Cheikh Ibrahima addiya Cheikh Ibrahima jox ko Serigne Touba Serigne Touba jox ko sëñ Balla Coro sëñ Balla Coro moo tax état jot ci muy lu leer yaa ngi dégg kon fii nii Ndakaaru lay li fi gars yi gën a bëgg. muy pale bi la Cheikh Ibrahima tëddoon mu amoon ci 4 hectares ba duggoon biir principal lépp alalu Cheikh ibrahim Fall Lamp la woon kon ñun Baye Fall ñoo moom Ndakaaru barki maam Serra Fall Baye Fall ñu ngi leen di ziar di bu baax barki maam Serra Fall. ci kaw ci kanam rek ci lu baax barki maam Serra ci kanam ci lu baax barki Serigne Bamba waaw Bamba moom réew Bamba mooy kii moom mim réew bamba ko moom réew mi bamba mooy kii ko moom. ñëpp dañ doon coow ñëpp xoolal avant muy ñëw coow li fi am ñi naan sama kat 400000 ñi naan pétrole ñi naan leneen ak leneen mais di kenn déggatul lenn bamba la ngay dégg destination bi bamba la xoolal lan lañ doon wax sama pétrole ballon d'or Sadio Mané wax na koo jël sama 400000 ak lu ne mais fu mu toll nii bamba rek la ñuy bind bamba point. te lépp bind na ko nag fu mu ñun xoolal. vaar vaaru sëñ Bamba fu mu toll ñun moom la ko app bi day jot le mu décoté app ki ngay décoté app bi day jërëjëf jërëjëf sant rek di sant sëñ bu baax daal di sant sëñ Touba bu baax ñun daal ñoo ngi sant rek sant si xewal sëñ Touba yi mën nañ la sëñ Touba bool la wun duy ba fees lii sir rek moo agsi fii ndab li ubbeeku ko ëllëg yomal xëyaam lay ubbi ndab li ndab li liy tuuru rek ci lan jot nii ñun xéewal yi ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax rek tey gërëm ñëpp rek ñu fi taxaw